mu wuy la c'est l'homme politique le leader politique le plus accessible au Sénégal d'accord ni ñuy def nu ñuy def balaa ñuy avancer ci ci ci waxtaan bi euh, Boubacar mm-hmm. tey la tey la mardi ah peut-être la semaine peut-être il peut avoir une semaine chargée ci mm-hmm. ci liggéey mais on lui donne euh, rendez-vous le week dans Salam Sénégal bon il n'est pas au Sénégal ah d'accord oui c'est vrai mu ngi mu ngi effectivement effectivement peut-être du fa def une semaine wala deux semaines bon tout dépend oui parce que mën na fa jóge dem feneen donc non dafa jógee ñëw ñu waxtaan. non xam nga xam nga xam nga présentement. am na business yu bëri yoo xam ne soxna si moo ko yoroon. d' accord ok. te depuis bu mu dëddoo ba tey. Mhm. Euh, je pense bien mu ngi def six mois. Euh, moom mooy mën bëgg a lijjanti yooyu. Mhm. balaa mu koy mën a dënkaat nit. donc loolu moo tax boo xoolee. tout le temps il est il est en voyage. Mhm. tout le temps soit il est dans d'autres pays euh, de la sous-région. foog mu stabiliser les voilà, affaires d'abord voilà euh, en dehors d'Afrique. d'accord donc yo loolu moo tax. d'accord mu xaw a wàññi tuuti. politique bi pour concentrer un peu sur. mais njaboot gi ñu ngi naan ma njabootu Sénégal sax ñu ngi naan ma ñu ngi euh, courir derrière lui depuis trois mois mais ba tey ñëwagul mais na ci taxaw mu ñëw ça lui fera une. non non loolu loolu loolu c'est pas un problème mais mais yéen xam ngeen ni. Uh-huh. dafa am jamono bu ñu war a waxee. ak jamono bu ñu warta waxee président Bougane mhm. euh, yaakaar naa fii euh, Sénégal set euh, gunge nañ ko fi ba tàyyi mu ñëw fi toog mhm. ngeen laaj ko mu mhm. tontu tey ci suba rek maa ngi gis benn photo boo xamante ni mooy émission bi mu fi mujjee bi mu fi mujjee def donc loolu noonu c'est pas un problème incha allah rabbi à son retour bu décidé pour génn wax dinaa ko xamal ni ko kat njaboot Sénégal set nee nañ nga ñëw toog seen plateau. d'accord bi mu demee Umra kañ la ban jour la. bon jeune ne me souviens pas exactement. def na une semaine. non non non pas du tout euh, ay deux ou trois jours. deux ou trois jours donc certainement peut-être la démission de Mamadou Gueye. Euh, l'original bi euh, chargé woon de la vie politique ah du du mouvement Gëm Sa Bopp euh, démissionné li ko waral nag mooy mënul comprendre mu ne mhm. posture bu Bougane Gueye Dany ci à quelques jours ou quelques heures de de l'élection mhm. présidentielle bi nga xam ne moom la ñëpp di coow tey démission boobu noonu ban impact la am ci biir kii bi ak naka ngeen ko naka ngeen ko gisee cette démission là alors xëy na dafa am lu bari loo xamante ni nit ñi dañ koy umpale mm-hmm. ndaxte euh, bu ñu toogee ne euh, bu géey toogee ne comprendrewul posture Bougane mm-hmm. dama yaakaar ni Bougane moo war a wax comprendrewul posture Mamadou Gueye l'original ah, parce que may fàttali nit ñi que ni ba veyu élection yi Mamadou Gueye l'original moo ngi demander au président Bougane de soutenir le pur le pur Mamadou Gueye l'original bëggoon na tey jii nii le président Bougane waxtaan ak Amadou Ba pour mu soutenir ko. est-ce que topp ko ci dynamique ko sati bëgg satisfaire tous les camps yi nga xam ñoo nekk au sein de gëm sa bopp ku ci nekk am sa candidat aussi. non pas du tout le président Bougane a été très clair. depuis le début. Mhm. li mu wax mooy Macky sàll ak waa këram. waa këram da see mën a génne Amadou Ba. pas du tout c'est son candidat dañ waxante dëgg. Amadou Ba lan la doon prôner la continuité. Mhm. et ñun lan lañ doon prôner une rupture. Mm-hmm. donc am na wax yoo xamante ni vraiment jarul jarul jarul ñu koy étaler fii nii mais ma leen ñu xamal rek ni. le président Bougane a été très constant. Mm-hmm. le euh, le frère Mamadou Gueye l'original loolu noonu mu doon wax ci euh, émission bi et tout ça di di ko expliquer ay wax yoo xamante ni dara du ci dëgg la vraiment. dara man maa defoon plateau bi. dama ne la dara du ci dëgg. c'est pas vrai c'est pas vrai. il a pris la défense de Bougane. Euh, non euh, dama ne la dama ne la quand il dit que. oui il ne peut pas comprendre la posture de Bougane. c'est Bougane qui ne après peut pas après la démission. qui non. bi muy def démission bi muy rendre sa démission. non xam nga xam nga xam nga posture Bougane c'est avant la démission. oui. posture Bougane c'est avant la démission effectivement. donc tey bu fekkante ne yow tu tu conseilles aux gars. Mhm. de soutenir le alors que yow nga dem voté jil pour tel candidat ani cohérence bi foofu. amoon ah, daf leen wax kan la voté. non il il a fait une vidéo ci biir isoloir bi xam nga kilifa sa moomul loolu di dem di voté ji si biir isoloir ngay filmer sa bopp lan nga bëgg a wane est-ce que xam nga man kan laa voté est-ce qu'il il est plus responsable. que il est secret le vote. c'est ça Ousmane Sonko ñëpp xam nañ kan la voté. mais est-ce que wane na ko. Hmm. gis nga leader mooy sànq li nga doon wax rek leader dafa am nu muy mandarga woo dafa am nu muy mandarga woo mais c'est pas comme ça que que les gens doivent faire la politique lii dafa dafa dafa dafa dafa salte d'accord mais quand même sa démission moom taxawaayam au sein de Gëm sa bopp. lu mhm. am solo la woon vous le reconnaissez. bien sûr. kon démission am am na nu mu leen nu mu leen nu mu leen néewalee doole dans une certaine mesure man personnellement je euh, vraiment da koy regretter waaye mënu ma ko mënu ma ko mënu ma ko cautionner mënu ko mhm. rafetlu parce que jàpp naa ni c'est un frère mhm. koo xamante ni dafa juum ah bon dafa juum ku juum nag da ngay da ngay jàppul ne Bougane dafa juum wala Bougane a été un peu au moment ba tax mu jël décision boobu Abdou borom xel nga dama ne. oui borom xel nga. Abdou. kii veille élection mooy le samedi. oui jusqu'à x heure nga nekk ak le président Bougane. Mm-hmm. naan ko soutenir la souteniral le candidat pur. joxel consigne pour ñu soutenir candidat wu pur nañ woo responsable pour ñu soutenir le candidat du pur. pour le premier tour comme moom ngeen jàppoon. non dama ne la premier tour ak deuxième ak. Euh, ex tour laa yamale. mais nit da ngay constant. oui mais Boubacar. man man xam nga man lan laa doon digal la président Bougane est-ce que. oui man j'ai été très constant ci li ma ko doon digal président Bougane ak may dégg. Mhm. président Bougane may dégg xale bu ndaw laa du fenal benn mag te du ma fen tamit ci benn mag. loo ko doon digal. non loolu c'est entre man ak moom. man nee naa ko. Mhm. man li ma ko wax mooy. le président Bougane. Mhm. ma ne ko man sama choix personnel compteetul. choix wu Masamba ak Mademba konteetul ce choix moo compté ginnaaw ñun ñëpp ñoo mànkoo ñu ne jox nañ la une carte blanche pour que nga choisir képp ku koo choisir na ñun ñëpp dañ si war a tënku kon yaa ngi may fekk c'est si li ma doon wax tout à l'heure mais pourquoi il n'a pas fait montre de son leadership d'autant plus que jox ngeen ko carte blanche alors non mais leeralal naa la ko leeralal naa la ko oui malgré tout ça malgré li nga leeral il y avait plusieurs camps tel candidat. oui mais jox ngeen ko carte blanche aussi. non déggoo li ma la oui si carte li mu def choix la dem leen ngeen voté jil candidat wu opposition bi ngeen jàpp ni moo gën. d' choix la. ok maintenant nag. Mhm. lu tax ñu bëgg orienté son choix si benn kandidaa loolu laa d' accordul mhm. en plus il faut que il faut que les gens arrêtent il faut que les gens arrêtent fii ginaaru kenn nenul kenn. Mhm. kenn du fi papay kenn. ki jur kese sa papa. <laughs> donc kenn mënul dicter kenn le président Bougane li mu war a def. ku d'accordul ak son choix. Mm-hmm. mais amal ngoru ni d'accord ma ak sa choix ba mu ko defee. mais ba mu ko defee def nangu nangu woo ko man ànd naa fi ak. Euh, un premier un premier ministre. Mm-hmm. ñu formé ndoo parti et tout ça. mais ouais. quand il a rejoint le candidat euh, le le le, le président Macky Sall dama ko fi ne ñukk dem sama yoon. je lui fait comprendre que ni. ce mm-hmm. choix bi du sama choix. góor day gore ba dee. gis nga gis nga gis nga ces manipulations là il faut qu'il les arrête ku bëgg a dem nga dem. d'accord parce que politique. politique. Mm-hmm. libre entrée la libre sortie. Mhm. personne ne conditionne personne mais tamit lépp lu ñuy def na rafet parce que en dehors de la politique il y a une autre vie vie boobu noonu même bu dee politique moo leen boole après loolu dafa après politique bi dafa war a loolu dañ ko war a mën a continuer donc am na loo xamante ni mhm. baaxul santul yàlla rafetul di yónni ay nit di créer ay faux compte di saaga nit ñi c'est pas c'est pas joli c'est pas joli man duma ko def te du ma wax nit mu def ko man quand je je euh, je avec toi dama koy def à euh, visage découvert mhm. boo ma ne teel ma ne la teel loolu mooy dëgg. d'accord alors euh, tey kon euh, certainement am na benn conséquence euh, politique boo xam ne le retrait ou la démission de de Gueye l'original avec son mouvement. Euh, am na ko tey politiquement lan la lan ban poids bi euh, poids bi lan la <laughs> lan la lan la peser poids le poids du départ lan la peser ci taxawaayu gëm sa bopp. mais rien du tout. Ah, c'est-à-dire c'est-à-dire gis nga gis nga mais est-ce que est-ce que les responsables à la base. Uh-huh. ont quitté. il avait un mouvement bu ñëw bokk. waaw moom mouvement ci biir mouvement gëm sa bopp mouvement am génn na dem. ak ay nitam. non mouvement am génn na dem. oui ah y a toujours des gens qui qui viennent. ba fi hmm. may waxee ak yow nii il y a de nouvelles adhésions dans Gëm sa bopp des gens qui étaient des candidats à l'élection locale oui. qui ne sont pour ñii nii pour ñii mais pour Gëm sa bopp hmm. tey jii nii rejoindre nañu et pourtant euh, peut-être bu président Bougane defoon beneen choix du ñu hmm. ànd ak moom donc moo tax ma ne la euh, politique naka mag ñi waxee woon rek saxaar buy dem la gaar bu nekk dina am ñuy wàcc am ñuy yéeg ñun nag liñ koy ñaanal mooy euh, bon vent di ñaan tamit fi mu jëm mu gënal ko fi mu nekkoon ñun loolu la ñuy lool lool lool parce que amuñu benn rancœur mais nag duñu nangu kenn di piétiner suñu leader ça moom il faut que ça soit clair bu fekkente ni politique la dañuy politique ba mu saf hmm. mais néanmoins les relations qu'on a dañ koy dañ koy sàmm moo tax nag ñoom ma lay apple appeler à que ñoom ñu ñoo parce que moom euh, ay xalem am na ñu ma si saaga xam nga man moom ay saaga moom duma la si faale. Ah, ndax man moom xanaa leen les politiques nekku leen ci weeru koor. non déggoo li ma la. oui na ñun même buñ nekkul ci weeru koor. xam nga man kan laay lijjanti. weeru koor nag dafa dafa raw. non dama ne la xam nga kan laay lijjanti. Ah. góor bu taxaw sama kanam. mais koo xamante ni à travers ay téléphone ak yooyu noonu ngay wax. Mm. yooyu rafetul sax. d'accord dafa rafetul surtout ay nit ñoo xam ne dañoo àndoon démb mhm. donc yooyu il faut il faut il faut qu'ils évitent ça certainement partagé na ko ak yéen le président Bougane naka la gisee l'élection de Bassirou Diomaye Faye euh, ni mu ko gisee nag euh, du lenn lu dul am si satisfaction euh, di savourer victoire am comme ni mu ko waxee mhm. parce que lu mu gëm la wax lu mu gëm la wax te toog nañ maag moom du benn du ñaar mm-hmm. muy ñaan bu gënee ci Sénégal yàlla na ko suñu borom jox bu ci gënul it yàlla na ko jox ci ki ci ki ci gën mm-hmm. toog naa mu toog ak la xalif général des Mourides mu wax loolu bantuwaat kàddu yooyu mm-hmm. donc tey satisfaction la am si si si si le président Diomaye euh, li mu jëlee réew mi jële fi ñu fi ne parce que dañ jàpp ni ñooñu dañoo yàq réew mi ñooñu tey euh, gis ngeen scandale yi nga xamante ni gëm sa bopp créer nañ ko de pour waxoon si ñii li nga xamante ni loolu lañ fi nekkee woon. donc ci ci ci ci loolu ñun du ñu def lu dul euh, am satisfaction di savourer nag suñu victoire parce que ndamu Sénégal la ndamu Sénégal la tey surtout nag mu nekkaat beneen ndaw boo xamante ni si suñu biir la ne mm-hmm. donc euh, ñu ñaan. tey jii nii euh, yàlla na nekk une si li nga xamante ni moom moo fi nekkoon. d'accord euh, alternative boobu noonu gëm sa bopp moom lay prôné euh, incité sénégalais yi ñu gëm seen bopp. Mhm. Euh, xam ne euh, doomi réew réew doomam ay doomam ñoo koy tabax tey à partir de maintenant bi nga xamee ni Pastef je vais dire jël na nguur gi lan mooy nekk à partir de maintenant la démarche. de de gëm sa bopp day continuer di exister nam daan exister woo day opposé wu wala naka lay def naturellement day opposé wu naturellement non mais notre notre notre